salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci onze officiel bi final Ligue des champion bi war a dox ci diggante Manchester City ak Inter bu 19h jotee di amee ci réew mu ñu naan Turquie dëkk bu tudd Istanbul stade bu ñuy wax stade olympique Atatürk foofee la match boobee di amee bu 19h jotee ñaari club yépp nag. kenn ku ne tànn na fukk ak benn yi mu wóolu ngir jàkkaarloo ak sa morom dañu koy doore ci waa Inter comme ni ñu leen ko joxe woon ci suba si rek mooy onze probable bi ñu leen waxoon taxawaay bi ñu leen waxoon nag Inzaghi soppiwu ca dara muy 3 5 2 noonee la taxawee ca kan ya nag doomu Cameroun bii di Onana moo fa nekk ñetti défenseur yii la wóolu muy Darmian Acerbi ak Bastoni ñett ñooñu ñoo nekk ca défense ba bu dee ca milieu de terrain ba moom juróom ñii ñoo fay nekk muy Barella Brozovic Çalhanoğlu ca Lafia ñaar ñi ñoo fay nekk bu dee ca witug ndijoor ba Dumfries la fa teg bu dee ca witug càmmoñ ga Di Marco la fa teg juróom ñooñu nag ñooy nekk ca milieu de terrain ba bu dee ca attaque ba ñaar ñi ñu leen waxoon ñoo fay nekk muy Lautaro Martinez ak Edin Dzeko fukk ak benn yooyu la Inzaghi yaakaar tànn leen ngir jàkkaarloo ak Pep Guardiola file ak ay minutes yu ndaw ñu jugee ci waa Inter dem ca waa Manchester City bu Pep Guardiola moom it tànn na fukk ak benn yi nga xam ne ñoom la wóolu ngir ñu départ ca match boobee Pep Guardiola nag taxawaay bii la noppi ngir taxawee ko muy 4-3-3 li ca bees kay moo di Ake dafa départ titulaire kon Kyle Walker day toog xaar loolee rek nag mooy coppite ci onze probable bi leen King Ouse Ngary TV joxoon ci suba si ca kang ya Ederson moo fa nekk défense ba Stones moo fay feggoo ak Ruben Dias latéral droite Akanji moo fa nekk latral gauche ba fala Ake nekk ci milieu de terrain ba nag ñetti ñii ñoo fay nekk muy Rodri Kevin De Bruyne ak Gundogan ca attaque ba Jack Grealish Bernardo Silva ak Haaland ñett ñooñu ñooy nekk ca kaw kon taxawaay boobu la Pep Guardiola taxawee ngir jàkkaarloo ak waa Inter file ak ay minutes yu ndaw kon nag balaa ñoo tëdd dinañu xam kan mooy jël Ligue des champions bii nga xam ne moo nekk soixante-huitième édition maanaam juróom benn fukk ak juróom ñetteelu yoon ñuy amal Ligue des champions Manchester City moo koy jël mu nekk yoonam bu njëkk wala Inter moo koy jël mu nekk